la la la lan bëgg xam. li ram di ñëw te doxaan la may ndur xam nga yow waxoon na la ko. sa xaalis mi. ko bëgg Cheikh ni nga jox bi. koy Cheikh man xaw lan mo nek ci bop bi mais du jàmm. yaa Cheikh moom bu ñëwee maa ngi koy nab nabbee lépp lu mu bëgg maa ngi ko koy defaral. yow Cheikh say vidéo ak say photo tuuti lii lan la jaral trois cent mille. munoo bàyyi su ma lay waxu paketoo nga may xel lu nii. yow kat boobu ba tey waxu mariage xoolal bu ko sax wax bu ñuy waxtaan maa ngi waaw problème. Tu vas te liggéey non ben un oh, problème franchement. peut-être ligué,